ñëpp rek mooy li nga xam ne wax na ko dama leen di indil moom Bougane waxtaan boobu nga xam ne def na ko ak Mouhalim tuuti ci diggante bi muy waxee que ne Ousmane Sonko ñemewul débat contradictoire su ma paree ma soog a leen indil ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko débat contradictoire yi nga xam ne doon na ko mëne euh, ay débat yoo xam ne plus que contradictoire sax am na ci yoo xam ne Ousmane Sonko amal na ko ci plateau yi avant deux mille vingt et ay débat d'idées yoo xam ne moom Ousmane Sonko moom moo moom moo révolutionné li nga xam ne moom mooy moom mooy lii di euh, combat médiatique bi ak tamit façon bi nga xam ne moom lay nit ñi di opposé woo donc nañ leen déglu ki nga xam ne moom mooy Bougane su ko defee ñu soog a ñëw ci li nga xam ne loolu la loolu la wax ñu soog koo jàngal. moom mu jàpp assemblée daa bàyyi loolu mooy dëkk waaye li ñu doon bañ mooy Ousmane Sonko def déclaration de politique générale loolu rek la te man suma gëm-gëm mooy Ousmane Sonko mënutoon def déclaration de politique générale musul noppi Ousmane Sonko lépp lu muy wax marto la non mënu musul noppi Ousmane Sonko mënta jàkkaarloog débat contradictoire ngay wax muy wax xalaatam pendant deux heures de temps munu ko. kon yow foo mus a gis Ousmane Sonko mu jàkkaarloo ki journaliste waxuma la journaliste am yu mu tànn moom parce que dafa am ay journaliste am am ay influenceur am am ay tiktokeur am am ba am ay garabu garaboom. mais li mu defoon 2019 mu defoon ca ban. li muy waajal élection yi ñu ngi présenté euh, euh, euh, solution. ci livre ba. waaw ah. ca nga ko gëj a gis. te dama ne ca nga ko gëj a gis. parce que boobu daf leen jox livre. mu wóor ko ne lañ koy posé ci livre ba la la aaju te te kaddu ya ko Cheikh Yérim Seck laaj ah. ca place de l'obélisque ñaari question yi mu ko posé ba tey Ousmane Sonko tontu ci bu la neexee nga dem gëstu gëstu gëstu jiwaat. question yooyu question boo boo gëstu ko di nga ko xam. mais dama ñu xam nga boobu waaw waaw mais l'essentiel mooy euh, ñun. ñin ñun ñun ñi nga xam ne dañu jagleel suñu bopp askan wi ah, amul amuloo sens interdit bu fekkee ne ñun dañuy dem ci nitu diine yi di dem ci ñuy yaxanalal réew ko déggandoo li nga xam ne Bougane wax na ko ci télé boobu nga xam ne moom mooy moom mooy Mouhalim ni ma ko waxee léegi nag dégg nañ Mouhalim li nga xam ne posé na ko ko comme question waaye tamit li nga xam ne Bougane Gueye wax na ko ci biir euh, waxtaan bi que ni Ousmane Sonko ñemewul débat contradictoire loolu nag man dama koy dindi bam mu set ma tege ko ne di wax ne Mouhalim waroon na ko mën a wax tamit ay émission yoo xam ne Ousmane Sonko yàgg na ko mëne Mouhalim nag vraiment ku ma respecté la ku ma nawloo la nit la koo xam ne tamit ku fonk li nga xam ne loolu la nekk la muy mbir mi nga xam ne moom mooy liggéeyu presse bi nga xam ne mi koy def jamono bu nekk tamit ànd ceeg courage di ko ci félicité waaye dama bëgg rek ñoo xam ne moom Bougane Gueye Dany li nga xam ne loolu la wax c'est faux Ousmane Sonko yàgg na mën ay débat yoo xam ne débat contradictoire la ci ay plateau ak ak feneen ak feneen duma ma ñëw sax ci li nga xam ne loolu la wax parce que comme nangu na ne Ousmane Sonko euh, def na débat contradictoire ci obélisque bay wax ne ci booba ci la yam kon boobu du ci ñëw damay ñëw ci yeneen yoo xam ne Ousmane Sonko def na ko ci ay moom mi ngi wax ne yeneen débat yi nga xam ne gis na ko mooy mooy invité ay journalistes am ñëw toog wax li mu bëgg a wax wala ay journalistes yoo xam ne dañ koy waxal euh, ay question yi mu bëgg question programmée loolu la wax ma koy indil ay journalistes yoo xam ne ñëpp xam nañ seenu seen diggante ak Ousmane sunko ñagas ñagas bu ci yàgg am. ak ay journalistes yoo xam ne ñëpp xam nañ seenu ñàkk far ci fenn seen indépendance ñëpp nangul nañ leen ko ki ma ciy jiital moom mooy euh, Pam Ngagne njaay laa leen di njëkk a indil Pam Ngagne Ndiaye kenn du ko wax di wax ne Ousmane Sonko ama am na journaliste Ousmane Sonko la wala dafay topp Ousmane Sonko ci li ko neex waaye ci émission Pam njaay Ndiaye boobu nga xam ne def na ko muy faram-fàccee dafa am leneen lu ca xew muy daf cee Ousmane Sonko daf cee jàkkaarloog ñaari membre gouvernement Euh, ki nga xam ne moom mooy Omar Youm muy ministre jàkkaarloo ci député maire Diop Sy ak tamit ki nga xam ne moom mooy parlementaire bi di Doudou Wade ñoom la ci jàkkaarloo ci euh, émission boobu nga xam ne amal na ko moom laa leen di njëkk a indil balaa ma leen di indilaat beneen ak yeneen xeeti journaliste yu wuute. un million trois cinquante sept mille quatre cent douze ñoo ni waaw huit cent sept mille deux cent cinquante cinq ñoo ni mais ay la yéwén ci démocratie war nga jàpp nag ni amatul lu ñu war a lu dul ndokkeel leen et ñu avancé ci ci ci quinze points yi liggéey ko mu jëm. xam nga référendum ñu passé ñun dañ cee nekk ci position boo xam ne dafa xaw a wute légèrement ak suñu yeneen naataango yi ne ci opposition moo tax ñun gisuñu fi lu fi jël ak lu fiy victoire xam nga car euh, impact politique bi ñu bëggoon jox référendum ñun justement loolu la ñu bëggul woon. parce que référendum. non boo nee noo kii ne déet. Ah, defal ndànk rek non non xam nga lan la. Ah. référendum. Ah. consultation populaire. li la tere ay question yu laaj peuple waaw ne leen lii est-ce que bëgg ngeen ko wala bëggu leen ko. kenn du jógee ci référendum ne député. yéen ngeen ni peuple bi loolu baaxul xaar rek. kenn du influencer peuple bi. kenn ci référendum ne léegi député la wala président la wala maire la. Mhm. peuple bi la ñu laaj mu tontu. kenn ku ne am nga ci sa xalaat. ñun foofu la ñu ne ñun peuple bi. te li ma wax dañ koo argumenté. d'accord jël projet bi point par point. mun naa ci poser léegi ñaar ñiy toog ay question ci tel article tel article mënuñu ma ko wax te mun naa leen ko tamit donc ñun. dañ ko càmbar doo cee wax du par parloo waa na mën naa koo jël dinaa mën naa ko wax mën naa ko wax mais mais dañu dugg ci détail mais mais li ma bëgg a wax xaaral rek li ma bëgg li ma bëgg a wax foofu monsieur le ministre léegi dafa wax dafa wax waxu daanu daanu amu fi daanu amu fi daanu su amee bu bëree amee rek daanu non su amee man jàpp naa ni bu bëree amee rek daanu xaaral ma rek premier daanu bi xam nga lu mu doon mhm. kii woo askan wi parce que ñoom li ñuy bañ débat bi ñu bañ mu posé wu débat boobu duñ ko fi mës a dindi mooy wax waxeet am na sénégal yi xam nañ ko léegi nag bi biñ ko démontré ba pare wane ni su doon conseil constitutionnel décision conseil constitutionnel rek moo leen lii conseil constitutionnel lan la wax ci article quatre-vingt-neuf de la nouveau article quatre-vingt-neuf de la constitution yow nee nga xam nga article quatre-vingt-neuf bi lu mu wax lan la wax. non xamuma ko. jeex leen article quatre vingt ko bindee baaxul. parce que su ngeen jëlee magistrat yi juge conseil constitutionnel jëlee leen cinq yóbbu leen sept am du méngoog mode de renouvellement bi dem leen bindaat ko est-ce que bindaat nañ ko bindaatuñu ko conseil constitutionnel le régime des partis politiques munu leen ko dugal ci constitution jox ministre de l'intérieur pouvoir boobu parce que liberté d'association la c'est sous le contrôle du juge bindaatuñu ko mhm. yeneen ak yeneen mi ngi ci constitution bi man ji bu bees yi wala bu yàgg bi. su may wax kay yoo xam nga li may wax léegi nga jël loolu yëpp daal di woo askan wi ñu ne 32 pour cent ci askan wi ñoo génn nga am ci waaw boo xam ne musuñu koo am du ci taux de participation di ci wii euh, bi nu mu ko emporté nga génn ci loolu ñu gis ni ñoom defoon nañu ci affaire bi seen bakkan lañ ci tegoon. Ah. gis nga liñ ci xëpp ci alal yow noo munee génn man gis naa ay ministre yoo xam ne fonctionnaire lañu ni man. xëpp ay milliards ci dem loué ay hôtel génne ay cortège yoo xam ne xaalis bu dul jeex ceeb yi doon circuler nangam nangam malgré tout munoo génne sénégalais non waaye wane nañ ko ci internet rek fu ne malgré tout ma daanele foofu munoo génne sénégalais yi lu dul trente deux pour cent su amee ko war a inquiet xam nga kan la mhm. ñoom ñii ñoo war a inquiet parce que xam nga ba même rek ma daaneel foofu man li ma gëm mooy fi ñu mënoon def le plein de voix ñoom mhm. mooy benn ñi ànd ñoom par conviction. te bëriwul ak ñi nga xam ne xaalis moo tax ñu génn ñoom def nañ foofu la plein de voix. d'accord nga am 65 pour cent d'abstention naan victoire am na victoire amul. d'accord merci alors président. ma yem ci boobu. Paw Pam Ngagne Ndiaye ne xam na ne euh, journaliste bu indépendance la koo xam ne kenn mënu koo wax ne ko fii nga far wala fee la far loolu ñëpp nangu nañ ko waaye tamit ñi mu sekkaloon débat bi gis ngeen débat bu technique la mi ngi amoon euh, depuis 2016 bu ko mën seetaan nga dem seetaani ji ko di nga xam niveau débat bi fan la tolloon di nga xam Ousmane Sonko fan la jóge parce que émission bi 2016 la woon su ko defee ñu jàllaat ci beneen boo xam ne Ousmane Sonko amal na ko waaye mi ngi ci jàkkaarloog ñaari journaliste Pape Alé Niang bien sûr ki la bokk. mais moom daf doon modéré ñi nga xam ne daanaka ñoom ñoo yoroon question yi ñoom ñoo yoroon waxtaan bi mooy Mutbaan ak Babacar John ñoom ñaar ñoo ko yoroon te ñëpp xam nañ seen diggante ak Ousmane Sonko ñagas gum yàgg ñagas ki nga xam ne moom mooy Mutbaan dégg nañ ko ci 94 milliards yi moom moo waxoon que ni wala boog dama naan bokk na ci ñi doon wax ne Ousmane ko daf ci am part daf ci am part wuñ ko ko jox mu génn di xataraayu lool. position boobu la ma sax am ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko donc ma bàyyi leen ngeen dégluwaat waxtaan boobu nga xam ne amaan na foofale nga xam ne moom mooy 2STV. suñu secteur privé dafa munagul compétir avec le secteur privé français wala allemand wala yu demee noonu musul am ci àdduna parce que tey accord de partenariat économique mooy supprimer na droit de douane. supprimant les droits de porte ñoom mun nañu ñëw comme ils veulent dugg suñu réew du ñu fay droit droit du fay dara ba pare ñëw implanté wu mais foog nga ni l' agriculteur sénégalais mun na compétir ak l' agriculteur allemand foog nga ni l' industriel mun na compétir avec l' industriel français le président Abdoulaye Wade bañ na signé pendant huit ans mu ñëw rek comme moom lu ko France wax defal moom lay def mu gaaw dem signé ko heureusement que comme c' est un accord sous-régional il faut que les seize pays de la CEDEAO euh, ratifient or le Nigéria a dit man du ma ko ratifier parce que man maa ngi doog a lancer sama programme de transition industrielle bu ma ko ubbee léegi gars yi rey ma pourquoi Union européenne bañ a signer le traité transatlantique avec les États-Unis mooy mooy APE bi parce que ñoom nee nañu États-Unis moo leen ëpp doole tant que réglé wuñu yenn préalable yi du ñu signer yow nga nekk la dernière zone économique du monde Union européenne nekk la deuxième zone économique du monde Macky Sall dem signé loolu ku bëgg a protéger ton secteur privé parce que dégg naa ko dans un discours mu leen way il faut vous préparer la concurrence arrive les Marocains viennent les Turcs viennent mais foog nga ni les Marocains les Turcs ak daño dañoo xëy xëy rek toll noon dañ leen protéger sen réew financer leen gis nga nos acteurs privés la ñu brave la ñu dégg naa sénégalais yu bëri naan way Auchan baax na fi parce que Auchan bi mu ñëwee la ñu commencé am lu baax et cetera may leen su doon lu lu lu jagul ci réew mi wala lu traîner rek ñu changé ko dañu waroon njëkk a changé kay mooy nos hommes politiques dañu waroon dindi ay japonais ñu ñëw di diriger réew mi wala ay chinois parce que nos acteurs nos acteurs privés ñi ci nekk formel comme informel jàmbaar lañu mais il faut ñu am facilitation yu état bi def les privés nga ñëw ñu jox la suñu marché public parce que sa réew moo ñu lebal xaalis yi ñuy dem defi ay club de Paris dañ leen nañ leen jox xaalis waaye suñuy réew. kenn ku ne li may joxe. suñuy société ngay jox marché yi. muy benn xaaral mu ne mu ne quand même e bi. non pour cent euh, cinquante pour cinquante trois pour cent du budget en tout cas des financements entreprise sénégalaise yi lañ ko jox. loolu xanaa moom statistique am la. Ah. soo jëlee premier phase bi rek soo jëlee terre bi ak Ila Touba bi pratiquement ñaar yooyu rek ak peut-être euh, autoroute bi dem truc ñett yooyu rek lekk na pratiquement soixante ou soixante dix du budget ñett yooyu ñan ñoo ko yor. est-ce que ay entreprise sénégalaise lañ fii la ñuy toog di dàqante ay sous ñu leen di imposer prix yu leen neex mais dañ koy jox xaalis ne ko da ngay jël suñu entreprise même dans des domaines yoo xam ne ñu mën nañ ci am compétence wala suñ ci amul compétence le minimum mooy nga ne entreprise bii ñëw di nga di nga def joint venture avec entreprise sénégalaise un deuxièmement di nga transférer technologie troisièmement di nga fay impôt Sénégal et quatrièmement di nga employer des Sénégalais ñeent yooyu yëpp benn amu ci Good bad quelle était cette question. waaw benn question laa bëggoon posé xam nga tey jii euh, Ousmane ñi ko doon remplacé. ñoo ci ñoom la gën a war a focaliser ko maa ngi nekk ay rajo soxna yi maa ngi xaw a nekk waa ñu engagement waaw Ousmane président en dehors du constat est-ce que mën nga choisir trois axes prioritaires si absolument lii ay xaj moo koy defee fii laa koy defee tànn moo koy defee fii par ci ngay jël bi ñu wax. trois axes prioritaires nga wax sa financement bi ñu koy de manière globale. lan mooy suñu gis ci financement parce que lépp ngi fii nag ci téere bi au moins bind nañu. non Sénégalais buñ moo tax dama ne dama koy wax parce que lu ma yomb la parce que lu ma xalaat la ba bind ko ba noppi foofu laay waxee. bu njëkk bi dafa wax ci agriculture bu njëkk bi dafa wax ci industrie kon moom reconnaître na ni sept ans yi mu jiite Sénégal industrie doonul yitteem te ñun ñu ne kenn mënu développer am am réew sans industrie amul moo tax dans le modèle économique bu ma proposé fii ma yemaat foofu ci boobu vidéo xam naa vidéo yi gudd na nag mais dama bëggee ñu comprendre rek euh, technicité wu débat yi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi ko doon mané ak niveau débat yi fi mu doon toll débat yi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi ko daan posé sur la table ci échanger ak ñi nga xam ne ñoom ñooy journalistes yi waaye tamit sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo koy toog di ko déglu euh, on dirait sax da ngay gis ne euh, à part Ousmane Sonko gisatoo ko gisatoo genre débat yi léegi moom daanaka bari na ci homme politique yoo xam ne dañuy nekk ci plateau yi rek di xaste ak saagante loolu nga fi gis donc ma ñëwaat ci beneen bi débat télévisé la boo xam ne Ousmane Sonko mi ngi ko amaloon ba tey ci 2S li nga xam ne moom mooy campagne législative deux mille dix neuf bi mu paree ci débat bi élection yi ci la nekkee. li nga xam ne moom mooy député moom Ousmane Sonko débat bi mi ngi ko sekkoon ak euh, ay acteurs yoo xam ne candidat lañ jëmee foofu la nga xam ne moom mooy assemblée nationale nañu déglu li nga xam ne moom mooy débat boobu nga xam ne Ousmane Sonko ñëw na ci ci diggante bu ndaw du ñu indi lépp mais dañuy indi benn diggante bu ndaw pour ngeen comprendre rek que ñiy wax naan Ousmane Sonko. day daw débat Ousmane Sonko ñemewut débat contradictoire Ousmane Sonko ñemewut ceci ñemewut cela ñooñu laa ñëw pour tëj buntu boobu tey te yaakaar naa ne bu tey jàllee dootuma ci waxaat. question hors de la place des organes de contrôle ci liggéeyu député Ousmane Sonko te jii bu doon wax ne assemblée nationale bari na coow organe de contrôle war fa dugg. est-ce que yéen seen majorité bu doon tamit si da ngeen koy def comme une exigence pour contrôler le, le fonctionnement de l'Assemblée nationale waaw loolu dang nga may ma dellusi ci benn euh, proposition bu nekk suñu programme ci treize mesures mooy loi organique yu organiser corps de contrôle yi rawatina kii di IG ak kii di contre des comptes la ñu war xoolaat ci ñaari sens benn ñu jox leen plus d'autonomie ñu génn ci euh, kilifteefu président de la république parce que xam nga nit tey corps yooyu benn bi mu ngi logé wu euh, la présidence beneen bi mais ñoom ñaar ñëpp seen programme président de la république moo koy validé pour ñu mun a dem defi contrôle loolu muy premier champ bi deuxième champ bi mooy ñu yaatal seen compétence ba fépp fu ñu utiliser xaalisu réew mi muy deniers publics te assemblée nationale ci la bokk ñu am fa sañ-sañ mën faa dem mais su weesoo loolu su ñu defee seen i contrôle ba pare ñu mun koo yët directement le procureur la république parce que su dee cour des comptes faut mu jox ko chancellerie su IG dañ ne le président de la république est le seul destinataire donc il faut ñu génn leen ci kilifteefu présidence de la république ñu am autonomie budgétaire am autonomie administrative mën a def seen liggéey di ko jox directement euh, procureur pour que ñu mën a topp affaire yu demee noonu bu leer weesoo mooy même su dee jox nañ ko procureur procureur di di tardé di yéex deful li mu a def ñoom ñu mun a am possibilité substituer pour saisir directement le juge que loolu moo mun a tax pasar pasare bi nekk ci réew mi te fépp mu am fi ñun bokk na suñuy mesure d'ailleurs dañ ne les fons spéciaux il faut que ñu encadrer ko ay fons secrets la il faut ñu encadrer ko mu nekk lu ñuy contrôler également parce que am na bu ne assemblée nationale am na bu ne présidence de la république am na leen luñ ko mën a méngale te tëj nañ fi jamono ji ab yooyu yëpp il faut ñu encadrer ko parce que xaalisu réew mi la impôt wu sénégalais yi la amul benn xaalisu réew boo xam ne war nañ koo teg ci loxo nit ngay président ngay président la l'Assemblée nationale te nañ kenn du ko contrôler ku la neex nga jox nu la neexee nga utiliser ko ah. donc loolu il faut que corps de contrôle yu am benn indépendance benn recul ak benn autonomie ñu génne leen du ñu doon parce que par exemple IGE dañ ne le rapport le président de la République te loolu du yoon parce que moo koy téye xool bu ko neex mu joxe bu ko neex mu téye très bien euh, ma ñëwaat si beneen émission bi mi ngi tuddoon une heure de temps pour convaincre une heure de temps pour convaincre la émission bi tuddoon mu ngi amoon 2017 2017 la émission bi amoon après émission bi ci la Ousmane Sonko nekk euh, député pour la première fois ma ñëwaat ci beneen bii mu ngi ko doon amale foofu la nga xam ne moom mooy Dakaractu Dakaractu la ko doon amale ñu ñëwaat ci dans euh, quelques minutes. keesu état bi nga ko jëlee parce que ñëpp xam nañ ni ki amuñu xaalis bi ñuy dépensé daal di wasaare ñu fal la ñu ne nag politique amul lu ko gën a noble amul lu ko gën a am solo su dee def nañ ko niñ ko war a defee mooy dangaa jóg ni man de fii laa juddoo yoroo fi màggee yàlla may ma ci xam-xam boo xam ne jàpp naa ni am na ñoo xam ne maa leen ëppale am na ñoo ne ñoo ma ëppale. loolu yàlla may ma te amuma ko lu dul askanu Sénégal ñoo ma ko permettre ndax man école publique laa jàngee xaalisu impôt sénégalais yi ko financé ba ma egsi fi ma egg loolu lañu bëgg a delloo Sénégal nga ne nag sooy dugg ci loolu il faut nga wax li yitteel réew mi mooy li ñuy wax les politiques publiques il faut ñu wax ci mbay mi il faut ñu wax ci sàmm gi il faut ñu wax ci santé bi ci éducation bi wax ci lempo gi wax ci pétrole bi ci gaz bi moo gën nga nekk rek ci ay xasante ay xuloo xiroog donc bi ñu duggee ci anam nga ko dugg ci politique yàlla may nañ aussi ñoom am formation bu ñu ko permettre parce que politiciens yu bëri wala li ci ëpp politique métier la ci ñoom ñun nag bi jàng jotee dañoo jàng bi gëstu jotee ñu gëstu ba liggéey jot ñu liggéey ba am li ñuy am ba toog booy dugg ci politique ci anam googu am nga loo mën a andi ci xam-xam ak ci gis-gis moo tax ñun loolu ñu andi xeetu xeetu politique boobu dafa ñëw déranger un peu le jeu politique boo seetee. ba ñoom mbir mi commencé leen métti parce que ñu ngi doon feeñal lu bëree bëri bëri askan wi ñu bëri li leen umpoon parce que peut seen jàng wala seen jaar-jaar mayu leen ñu xam ko ñun bi ñu jugee ci di commencé wax dañu commencé xam lu bëri muy ci APE yi accord de partenariat économique muy ci franc CFA bi muy ci fiscalité bi l'impôt bi muy ci pétrole bi gaz bi muy ci or bi ci phosphate bi muy ci mbirum napp bi ci yu bëree bëri bëri ñun biñ ci commencé wax. ak marché public yi ak yu mel noonu privatisation yi ci la Sénégalais yi bëri commencé ne ah lii de moom xamu ko ci woon lii de bi ko diw waxee laa commencé xam lii ba leen li sax ñu bind ci ay livre loolu moo leen dérangé ñoom ba ñu xëy bu ragal terme bi dañ maa dàq administration te kenn dàq ko administration ku dul Macky Sall moom ci boppam. parce que la ñu wax wala li ñu li ñu li ñu laytaaye mbir mi loolu mus amul ñoom xam ne ko parce que dañu ne indiscrétion professionnelle. maanaam da ngaa jël loo xam ne lii ci nguur gi. station ba nga liggéey. moo moo permettre nga jël ci information loolu mooy indiscrétion professionnelle. nation yi dafa xaw a jege te wuute. Mhm. dafa am secret professionnel. am discrétion professionnelle am obligation de réserve. Uh-huh. am obligation de loyauté ñett yooyu yëpp bu nekk dafa am contenu euh, Sénégalais dañuy jaawatale yooyu yenn saay obligation de réserve li mu tekki mooy Sénégal euh, fonctionnaire bi am na seen sañ def politique uh-huh. wala mu def syndicalisme waaye daf ko war a def avec réserve warul critiquer administration critique bu ëpp uh-huh. wala yu mel warul critiquer autorité yi pas administration mais président la république wala ministre yi waru leen critiquer critique bu ëpp discrétion professionnelle mooy euh, dafa am loo xam ne ci sa administration bi nga bokk par exemple man direction générale des impôts et laa bokkoon waruma leen critiquer lu ëpp foofu sa administration la dootul kilifa yi ci kaw. Mhm. su nga ñëw nag ci li ñuy wax. Euh, euh, droit de réserve droit secret professionnel. Mhm. boobu mooy booy liggéey ci biir administration. bëri na loo xam ne di nga ko gis di nga ko xam te position bi nga tax bi nga nekk moo tax nga xam ko loolu waroo am sañ-sañ génn wax ko ci biti man nag reproché wuñ ma violation de l'obligation de réserve reproché wuñ ma violation du secret professionnel dañ soo seetee décret bi Macky Sall signé discrétion la wax discrétion professionnelle mooy administration bu ma bokk muy impôt domaine dama leen a critiquer lu ëpp loolu mooy question professionnelle mais loolu Sénégal yëpp xam nañ ni amul ñëpp xam nañ ni li leen métti mooy li ñu feeñal ci luubal yi moo xam waa assemblée nationale yi yi yi doon def fraude fiscale daal di teq impôt député yi fayuñu ko euh, versé wuñ ko moo xam moom ak rakkam ak ñoom euh, Aly Ngouille jaay yooyu yi ñu def ci pétrole bi moo xam marché public yi ñu joxe ay envol immobilier yooyu te jaarul yoon ñu dénoncé ko. ak yeneen yu mel noonu loolu moo leen naqari. mais ça aucun rapport avec quand même la discrétion professionnelle. c'est c'est vrai que c'est. Euh, Dakaractu ba xam naa dañuy may egsi ci jeexal parce que bari na ay émission yoo xam ne def na ko mënu mu fi teg yépp naan leen bi ak bi ak bii mais damay balaa maa jeexal rek dinaa leen yaat beneen parce que Dakaractu tamit. ñëpp xam nañ ne kenn mënul wax euh, waxu favorable à Ousmane Sonko di ci boole Dakaractu non non ma ñëw ci benn balaa ma ñëw ci bi may jeexale muy bi nga xam ne defoon na ko ci quartier général moom Ousmane Sonko ba tey donc ñu ñu àndandoo teewlu ko après bu jàllee ñu ñëw ci bu fin bi fin bi mooy euh, nga xam ne def na ko ci grand rendez pour joxe pétrole moo tax genre lien yooyu soppuñu ko soo jug soo ñëwee ci suñu statut la fonction publique ak ci code pénal da koo dàq nga dem ci loi internationale yi wala ci convention internationale yi da ko dàq moo tax pour amuser un peu lecteur. ma def référence ndax bi ñuy nekk ndaw dañ daan dégg Dalas Dalas lañ fa wax ci ñi nga ne war nañ leen auditer je pense euh, euh, wax na ci moom Chérif ah li ñu wax dañu dañu wax ni li xew mhm. il faut ñu situer kenn ku ne li nga ci def mhm, moo tax ma jël autorités yi ci intervenir yëpp mhm. soo jëlee ku mel ministre en charge de l'énergie de l'époque muy Aly Ngouille Ndiaye moom moo ci ëpp responsabilité ñëpp affaire yu garaaw la def parce que décret bi tax ñu signé moom moo def rapport de présentation bi te élément yi mu bind ci rapport de présentation bi amut donc yow nga bind ne pétrotime société asiatique bu mag a mag la boo xam ne euh, euh, euh, ay groupe de personnes ñoo ko moom te booba jamono Petrotim du société bu mag Petrotim benn nit rek ko moom du groupe de personnes Petrotim amul référence ci pétrole parce que l'article huit du code dafa ne balaa ngay jox nit pétrole il faut mu justifier ñaar mooy lan mooy ses capacité financière parce que pétrole du affaire u cent franc du affaire u cent millions. xaalisam de dafa bëri. donc ki ko ki ñëw ne jox leen ma benn bloc il faut nga andi ne man am naa capacité financière yi banque sangam moo may ngëb wala am na société maire bu am doole bu may jox xaalis ñaareel bi il faut mu justifier capacité technique am mooy il faut mu ne mos naa liggéey ci pétrole dëkku sangam dëkku sangam def naa forage fii découvrir naa pétrole fii exploité naa fële. Petrotim remplir woon benn ci condition yooyu. Mhm. dañ ko signal contrat ba pare. Mhm. le 17. le 19 lay doog a créer société bi. donc dañ koo njëkk a jox pétrole muy doog dem créer. société muy doog a dem créer société donc yooyu yëpp yu garaaw la yoo xam ne am na ci pétrole bi. Uh-huh, uh-huh. moo tax ci yeneen développement yi. Uh-huh. bi ma waxee par exemple ci président de la république. li ma bëggoon wax mooy il faut ñu profité ci. réfléchir sur suñu système institutionnel bi. parce que le président de la république c'est le premier responsable du pays. mais suñu constitution da ko irresponsabiliser. mooy président de la république. mën na def lu ko neex dara du ko ci fekk sauf haute trahison te amul benn loi benn doctrine benn jurisprudence bu lay définir c'est quoi la haute trahison donc il faut que à côté de la responsabilité pénale du président de la République nga xam ne c'est une responsabilité difficile à mettre en œuvre ñu instaurer la responsabilité politique loolu mooy permettre soo gisee euh, brésilien daaneel Dilma Rousseff wala sud-coréen yi temps yi daaneel seen président mooy su dee dañu dafa am njombe yu président def peuple mun na jóg manifester ñu enclencher une procédure de destitution loolu France bi ñu doon toppandoo sax 2007 la réformer sa constitution dugal léegi la procédure de destitution donc il faut que au-delà parce que Sénégal la rek ñu ne immunité du président mais président nit la est-ce que su génnoon fii rey nit day am immunité donc il faut que aujourd'hui suñuy suñu juridiction suñu législation constitutionnelle évoluer mhm. l'article 101 notamment mhm. ba président bi au-delà de la responsabilité pénale nga xam ne pour mettre ko en œuvre c'est des procédures spéciales c'est une c'est un délit spécial muy haute trahison c'est des procédures spéciales mooy une juridiction spéciale avec des modes de saisine également spéciaux mhm. il faut que ñu instaurer la responsabilité politique. kon de xanaa boo demee ko liiree liiruñu ko sax on a lu euh, comme ni nga ko waxee ñëwaat nga ci genèse euh, ressources naturelles du Sénégal qui ne date pas d'aujourd'hui. 52 mhm. le commencé anoo wax nga euh, le gaz de de Gadiaga. Mhm. avec Forteza et tout. mais l'attraction du livre c'est toujours Petrotim Franck Timis indi na fi coow lu bari opposition bi campagne na ko dox na si doxu ñaxtu annoncé nañu ay plainte ay contre plainte aboutirul ba léegi déggatuñu dara si plainte yooyu premier ministre def na fi conférence de presse apporter ses explications def des menaces ne ku fi waxati ci pétrole bi te waxoo ci lu loo ci xam ne la yóbbu si yoon boobu léegi déggatuñu dara ngeen wax ko si. Uh-huh. tu as écrit un livre pour la postérité peut-être sa combat bi fan la lay mënee parce que opposition bi ci doon wax waxatu ci parce que xam naa amuñu argument yu valable. Uh-huh. Euh, euh, premier ministre menacé na président nee na dem leen ba planète Mars ngeen wax fa léegi bind nga sa livre combat bi fan lay yem fan la lay mënee. Aliou Sall démissionné na Petrotim euh, Franck Timis moom jaay na pratiquement ses ses ses parts à à Cosmos Énergie. kon léegi te yow débat bi amul benn clarté ba léegi ba léegi sa combat bi fan la la war a mën a yow. ngay njëkk livre bi. dinaa leeral ci lu bëri. dinaa ko dinaa alors et le combat du combat entre l'opposition et le parce que le pétrole n'appartient ni à l'opposition ni au pouvoir mooy li may wax toujours rek bu ñu réduire les débats tout n'est pas politique man politique yow ma pétrole dañoo bëgg askan wi. mais opposition bi politique na ko. te yow yaa ngi biir combat dañoo bëgg c' est de bonne guerre. Mhm. c' est de bonne guerre parce le premier de l' opposition c' est d' les fautes du pouvoir donc loolu amul problème mais li ëpp solo de même que le le le pouvoir exploite les moindres erreurs de l' opposition mais li ëpp solo mooy on a une ressource qui appartient à quatorze millions de sénégalais constitution bi bi ñu defee seen référendum article vingt cinq deux. dafa ne les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais ressource naturelle boobu ña ngi koy gérer ci noo xam ne wax naa ko ci livre bi mënoon nañu wax ci yeneen ak geneen parce que yemul ci zircon baa ngi fi li xew Sabodala mi ngi fi géej gi ñuy pillé mi ngi fi. ñu foofu te ñëw ci bi nga xam ne ci la ñuy jeexale muy grand rendez-vous grand rendez-vous lu euh, déglu li nga xam ne loolu la fa il faut tamit ñuy bàyyiwaale xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di amal li nga xam ne moom mooy euh, émission yi ak tamit assistant yi chroniqueur yi ñëpp ñuy bàyyi xel Ousmane Sonko ñan la daan waxal ak ban niveau la daan waxe nañ dem ci Alioune Ndiaye muy grand rendez-vous. nous avons apporté beaucoup de choses. nous avons mis beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et nous sommes restés dignes. donc ça c'est une satisfaction personnelle. mais ah. dans la vie il y a mille choses qu'on peut faire surtout hmm. quand on a les profils que nous avons. Euh, et euh, euh, pourquoi le, président Sall qui, est quand même quelqu'un d'intelligent Vraiment, ça, on ne peut pas le nier. Donc, euh, pourquoi il a, il a pris le parti de, de faire de vous un héros euh, de, de, savoir que euh, de, si, si, si, le, si, si met en, en, marche une procédure comme celle-ci, euh, vraiment que euh, tout le monde va, va, va, va vous, vous, euh, vous, vous, vous, c'est-à-dire vous allez devenir peut-être un martyr de la République. vous êtes devenu populaire, vous êtes l'un des populaires pour un parti qui a à deux ans. Euh, est-ce que c'est est, qu'il est mal conseillé ou bien, euh, ou bien il peut-être qu'il de manière impulsive C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Ça, vous fait une promotion euh, vous aurait fallu peut-être dix ans euh, pour pouvoir faire par vous-même, quoi, en fait. Ben, ça, Mfidia, il faudrait le demander <laughs> à celui que vous considérez comme si intelligent. pas si intelligent, je n'irai pas jusqu'à apprécier ses capacités, ses facultés. Ce que je sais, c'est que euh, pas le premier acte de ce genre posé par le président de la République. Vous savez que nous avons une gouvernance très violente depuis que le président Macky est là. Une violence, qui ne supporte pas, qui est allergique à, à, à, tout ce qui est critique et tout ce qui peut euh, montrer aux Sénégalais son véritable visage. Et à chaque fois que c'est le cas, c'est des comportements assez violents, euh, violents du moins, de menaces, des, euh, des, des, des, des, vous avez vu ce qui s'est passé avec <laughs> Nafingom Keita, vous avez ce qui s'est passé avant avec beaucoup d'autres cas. Donc, sans entrer dans des histoires d'intelligence ou pas, je crois que c'est un trait de caractère de ce gouvernement. qui se trompe complètement d'époque et de peuple. Non, non, mais je veux dire que ça, c'est des, des, évidences. Je veux dire. Oui, mais c'est peut-être après coup qu'ils se rendent compte. C'est peut-être parce que vous savez, quand on est euh, euh, épidermique ah, ah, ah. et qu'on gouverne par la colère, on a tendance sur le show. Je crois que si vous voyez la succession des événements, c'est parti d'abord de ma fameuse boutade sur le lion qui dort mm. et qui n'est apparemment pas encore réveillé. Mm. Et ensuite... Euh, non, bien euh, avant, avec... avec, avec bien le... avant, il y a l'histoire oui, de l'Assemblée nationale. Et ensuite, on a enchaîné avec le pétrole, où sa responsabilité est impliquée au premier plan, et celle de son petit frère. Évidemment, il y a un enchaînement de choses qui ont pu irriter et qui l'ont qui amené à donner des instructions. Ce qui est évident, c'est que l'acte a été posé avec la ferme volonté de faire mal. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on gouverne le Sénégal. Je dis que non seulement ça n'a pas fait mal, mais euh, comme vous l'avez dit, euh, ça a amené beaucoup de Sénégalais à s'intéresser à ce que nous faisons et ce que nous disons. Nous ne sommes pas dans cette course vers la gloriole, vers la notoriété, c'est pas ça. C'est un combat de principe et un combat patriotique. Nous voulons poser des débats de fond. Nous les avons invités à ces débats-là. Personne ne nous a entendu insulter, ni bon, il y a de petites boutades, mais ça, ça va de temps en temps. Si un président de la République confond sa casquette de financé par nos impôts et se permet de menacer l'opposition euh, en disant méfiez-vous du lion qui dort, il, est, il, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il se fait euh, retourner ses propres arguments. Mais ça, ce n'est pas dans le sens, euh, je ne sais pas, malsain, etc. Mmh, C'est des éléments qui arrivent dans la politique. Mmh. Mais indépendamment de ces petites boutades, nous les invitons à un débat public, sérieux, structuré. Quand il y a eu le débat sur le pétrole, Ils sont montés au créneau les uns après les autres. Et chacun enfonça davantage le régime. Mm. Nous les avons dit, il y a plus simple, venez, on organise un débat public sur le dossier Petrotim particulièrement, parce que le vrai dossier qui pose problème, c'est celui-là. Mm. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas vu de, réaction. Mais, mais, mais, là, là aussi, euh, est-ce que à, à parce que euh, vous êtes euh, indissociable. mbokk yi ñu ñu yem foofu euh, jeexal li nga xam ne moom mooy waxtaan bi xam naa ne yàgg na mais j'espère que li ma bëggoon mu leer ci seen bopp yi rek leer na ndax ay émission waxuma la deux heures de temps mais deux heures de temps de plus la émission yi yëpp nga xam ne génn nañ ko fi que ça soit bi nga xam ne moom moo amoon ci quartier général ak bi nga xam ne moom moo amoon ci de temps pour pour euh, convaincre ak grand rendez nga xam ne moom laa leen mujjee indil am na sorti bu nga xam ne def na ko ci foofu la nga xam ne moom mooy nday Fatou Ndiaye Ndeye Fatou Ndiaye xam ngeen ko bu baax euh, ak digganteem ak patriote yi euh, ni mu ñagase waaye tamit ay émission émission yoo xam ne Ousmane Sonko def na ko entre deux mille seize ba deux mille vingt et deux mille vingt et ci lañu gis nag Ousmane Sonko jël recul taxaw euh, malgré taxaw gi mu taxaw sax ay nitam ñoom ñi ngi continuer di dem ci émission yi di euh, mouiller la maillot di def yi nga xam ne lu ci ëpp ñi ñuy jàkkaar lool sax dañuy am problème problème niveau ak jàmmarloo ak ñoom ci wàllum débat d'idées ba dañu mujj orienté li nga xam ne moom mooy débat bi comme niñ ko defee rek ci euh, seen diggante ak Ousmane Sonko parce que dem nañ ba xam ne idée yi muy développé ak euh, scandale yi nga xam ne mi ngi koy wane jamono bu nekk yée gi nga xam ne mi ngi koy yee sénégalais yi ful bi nga xam ne mi ngi ko commencé di topp mënatuñ ci woon dara lu dul rek ne nañ tëgg complot dès que ñu tëgg complot bi nag ci la ñu gis recul boo xam ne Ousmane Sonko am na ko ci espace médiatique bi léegi li nga xam ne moom lay def li ci ëpp muy taxaw jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye régime bi parce que xam nañu ne ñoom ñëpp def nañu benn say régime bi ak système bi nga xam ne considéré na leen euh, ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk système bi taxaw nañ nag ngir ne dañ koy éliminer dañ koy génne ci espace politique bi léegi kat dinañu fexe nuñ ko mën a def ba dootul bokk du mën a bokk sax ci élection présidentielle parce que jaar jaar na ci élection présidentielle 2019 gis nañu troisième la génn ñaar ña nga xam ne jiitu woon nañ ko kenn ka fekk na moroom yi ja léegi moom mooy sës ñu ne nañ ko reyee léegi la fait que ñu koy rey dañ koy tëggal benn complot complot boobu nag ba mu amee ci la commencé def li nga xam ne moom mooy conférence de presse yi ak point de xam ne mi ngi koy amal waaye tamit déclaration yi nga xam ne parfois bu amee lu mu war a wax mi ngi koy def parce que xam na ne ñi nga xam ne ñoom ñooy patriotes yi ñoom ñooy plateforme yi te message yi nga xam ne mi ngi koy bëgg a jàllale à tout moment bis bu euh, bis bu diiree li nga xam ne moom mooy bu visé ki nga xam ne moom mooy cible bu dóoree du raté donc kon nag mu continuer ci logique boobu bàyyee leen ak seen ay média waaye tamit bàyyewu leen ko dem toog ndax ay problème jamono bu nekk ñi ngi dem ci palateau yi ñi ngi défendre li nga xam ne moom mooy seen ay idéologie kon tey ku dem ba heure bii nga bëgg a taxaw di wax ne Ousmane Sonko ñemewul débat contradictoire da ngaa wax sa waxi bopp tamit jàpp naa ne képp kuñ taxawal di ko wax muy ab patriote muy ak lu mën a doon muy sénégalais boo xam ne sax citoyen lam nga koo xam ne vous de bonne voie da nga war a taxaw rek leeral kat ne Ousmane Sonko yàgg nañ ko dégg yàgg nañ ko gis ci télé yi yàgg nañ ko dégg ci rajo yi fenn fu nekk dem na fa wax na. Euh, woona leen ci ay débat d'idées woona leen ci débat wu xam-xam woona leen ci débat économique débat yu technique mi ngi ko daan amal mais mësuñu ko ci nangoo répondre mësuñu nangoo dem ba nga xam ne sax ñu ci bari dañ ko doon daw parce que niveau débat bi fi mu tolloon ñu dem ba amatuñ ci moom benn benn amatuñ ci moom benn solution bu ñu defati ñu tëggal ko complot donc à partir de ce complot nag ni ma ko waxee léegi ci la reculer taxawaat xoolaat communication xam ne ñii nga xam ne man ñoom laa soxla ñii nga xam ne ñoom ñoo ànd ak man ñi ngi may xaar fii donc naa wax ak ñoom ci fii kon képp ku taxaw wax leneen sa waxi bopp nga wax ak tamit bëgg a wala bëgg a yàq koo xam ne xam nga bu baax que ne niveau ba mu toll tolloo fa xam nga bu baax que ne niveau ba muy waxe waxewoo fa koo xam ne saa génnee wax ay xale yu ndaw ñoom ñooy génn di la rectifier te beneen affaire bu ma ci bëgg a euh, bu ma ci bëgg a doole Ousmane bi muy opposé wu Macky Sall bien vrai que doon na laaj doon na woote débat d'idées mais li mu doon wax nous les invitons dañ leen di invité Ousmane Sonko ko mas a ñëw baax na moom toogal ak moom rek toogal ak moom débat public débat télévisé ak ku mas a ñëw baax na mosuñu dégg Ousmane Sonko muy. taamu ne il faut Macky Sall ñëw wala il faut Mimi Touré ñëw mi nekk premier ministre wala Boun Abdallah Dionne wala nangam nangam donc kon Bougane Gueye yow mi nga xam ne da nga taxaw ne da ngay ko Sonko ñemewul débat public yow déjà demal débat public débat contradictoire jëlal ci booy Pastef yi Ousmane Sonko ci li ma génne léegi gis nañ ko Omar Youm moom ak Omar Youm gis nañ ko moom ak maître El Hadj Diouf ak ñeneen gis nañ ko moom ak Diop si mu ñu toog di def ay débat contradictoire pourquoi pas yow mënoo loolu yow mi di wax na ñemee nga euh, débat contradictoire yow chaque émission yi nga xam ne dañ lay gis nga di ko amal yow ak journaliste bi la yow ak journaliste bi budul émission budul euh, déclaration boo fi masoon def xaw déclaration de presse xaw ma point xaw ma lu mu doon nga woo ay ñoom Aïssatou Diouf Fall ak ñi ñi nga xam ne convoqué nga leen ngeen toog nga wax fa sa waxu ba wax fa sa ay juri juristen yoo xam ne xew ma nombre au nombre de combien bi nga génnee ñëpp la weddi donc déjà balaa ngaa wax ne kenn ñemewul débat contradictoire yow demal débat contradictoire ba pare defal lu Ousmane Sonko def comme sa idole la danga koy roy defal li mu def da ngay dem dem ci débat jàmmaarloo ak ngañ Demba Touré mi nga xam ne mi ngi lay woo Ousmane Sonko mosul taxaw wax ne du ma jàkkaarloog Abdou Mbow mosul taxaw wax ne du ma jàkkaarloog Omar Youm mosul taxaw wax ne duma ma jàkkaarloog kii wala kee képp kuñ ko mas a booleel ci débat toog na def ak yow débat wax li nga xam ne loolu la loolu mooy idéem wax li nga xam ne loolu la am ci programme défendre ko nag mais yow. nañ ñu indil benn débat boo xam ne yow def nga ko benn homme politique benn acteur politique bo xam ne bokkoo leen position nga taxaw wax mu wax nga défendre sa ay idée loolu dafa mas am yaa ngi nii ni yaa ngi nii wax ne da nga bëgg a laaj réew mi donc il faut ñu arrêter tamit daal <laughs> xam naa damay bàyyi ñu yemale foofu waxtaan bi su ko defee. yéen tamit euh, niñ koy defee jamono bu nekk rek am ngeen ci seen kàddu ñu leen di bàyyi xew jamono bu nekk ci commentaire ak ñi nga xam ne dañuy woote jamono bu nekk di joxe seen ay xalaat ak remerciement yi yëpp ñu ngi koy jot ak euh, ñi nga xam ne jamono bu nekk ñi ngi wax naan dañu leen di namm di leen def euh, vidéo yi à tout moment mais xam nga doo mën a génn chaque instant nag ngay def vidéo chaque instant da ngay xaar rek ba comme lu mel nii occasion bu mel nii man yi suma ma gisee damay bëgg rek éclairer mbir mi mu leer su ko defee kenn ku ne ñu xam li nga mën a xam euh, fi nga mën a xam li nga yàgg a def ak lu euh, li nga xam ne diw mi moo ko def ak kii lu mësul def loolu noonu damay bëgg muy leer donc di leen sant di leen gërëm di joxe dig daje ba beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah.